gannaaw ñeent fukki millions yi mu génne woon daal di koy def ay financement jébbal ko jigéen ñu beleel yi soxna maam Saye Mbacké génne waat na fukki million ak juróom ngir jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Madiyana 6 moom nag muy wax ne li muy def daal mi ngi ko tënk ci jàppale leen ci Covid 19 bi waaye gis na ne kon confinement bi jotoon na def ay njombe yu bare bari ñeel seen koom-koom. tey jii ñu wootoon fi Madiyana 6 di financé jigéen ndax kenn ko xamé fièvre bi japp na jëri ba kenn mënu liggéey ñu bëgg leena jappalé jàppale wan am lu liggéey ndax eh, réew mi metti na trop li non jaay ki mu tan dem mu dikkati kenn mënut a defat leen ta comme ñi ngi dingi sa force man man na dimi sama jigéen ñi manit ndax lo gis rek lo xam jigéen man ci biir ta gna do so dikkee ñoy mu ñooy ñoy fess kaari ñoy fess baasi kon tay bu ndimbal dikkee waran ci bokk man ma dem ko dimbatiyel def def na ma ko defoon tuwa bela joxe son ñu ñëw lebal am riyan xaliss ñu mën a yu ma ñu fay ñu lebalaat leen ak ay goor tamit ñi bay goor ak jigen goor ñi bay tamit ak ñi sam ak ñi def opération pour tabaski du président wax bu jógal si ndox ma ci dugal sama loxo baax yënd lu ma fanaan ma heure ma xeyé rek luy may ñin ñi jamm ñu mi may tok feebar bi raxas bi ak masque yi ak sel bi ak tamit jàppale leen ñu liggé ba kenn ko nekk do am ñakare pour loo dund sa njaboot ak loo liggéey xanaa am ci xol bu sedd ndax ay nit bu na dee sonal ci élection di politique dafa metti bu dee bàyyi sunu njaboot ñëw di sonn yàlla may la ba nga am ndimbal nga mën ay jël xaalis ci banque ñu wóol la nga jox sa question si xaalis bopp dimbalee leen ko ñu liggéey ci am xol bu sedd ko yi ak mbégte na nag moom ndax femme yéen financé fii moom ëpp na 200 personnes xañ na sa tool nag mbooloo mee tax ñu bën ñëw bind rek dem biir compte dem mun dajale mbooloo kon nu koy aay loi bi da koy aay fii jamono tool dajal mbooloo wóorut looloo tax fii 15 millions. xaalis bu ñu la ko joxee dañoo bëgg nga liggéey fay delloo ndax dañ ne boo delee banque delloo banque bi taxaw ngay doon te xam nañ loolu wóol naa leen tamit ndax amuñu jaaxaan dama leen chiffre bu baax leen topp ñay bay mun ba jéggee ba gerte gi buur ba toll ci tóortóor damay dugg ci tool di ko xool bu ne ba toll ci bay bay bàcc bay jaay gerte ba leen di contrôler jigéen bi ñor ay poulailler dama leen di contrôler ñor ay xar tamit pour tabaski gi tamit dama dem doon contrôler. mu nekkoon na daje bu am solo amoon Madiyana Cissé ñi nga xam ne ñooy soxna yi fësal seenu mbégte waaye di sàkku ci président Macky Sall mu dooleel kii nga xam ne saa su nekkee ci ay jafe-jafe moom la duy gis. tànk yi fii xanaa maam say bëgg noo jàppale rek ndax di mutuel bii mu fi indi jigéen ñi jigéen ñi Madiyana sonn nan su may wane jigéen ñi Touba gi yëpp sax sonn nan lool moo tax mu bëgg noo dimbale indi fi di mutuel pour ñu jox ñu financement ñu jëfandikoo liggéey rek liggéey la laaj ku ne xam ne ne moom xaalis banque moom liggéey la laaj liggéey rek lañ ko fas yéenee def takk suñu ndig fas yéenee liggéey sant nag maam soxna soxna maam say mi te xam ne waa Madiyana 6 moom Madiyana yëpp sax Madiyana 1 ba Madiyana 6 jàppale na leen ndax jàppale na leen ci lu ne jàpp nañ leen ci financement yi jàpp na leen ci affaire bi ndax affaire bi ba mu ñëwee kenn ku ne dalay woo par kenn jox nañu ay ordre sawel jox nañu ay sel jox na nañu ay raxasu jox nañu ay masque ne leen dee leen raxasu dee takk masque dee leen def yëpp kon nag soxna maam say moom amuñu payam neen population bi yëpp nag Madiyana siis kon nag na ko Macky Sall jàppale bu baax. léegi nag ku ne xam na ne instant bi dañoo toll si ay nawet Touba Belel ku ne xam na ne ay baykat lañu Touba gi ñi fi nekk genn wàll gi yëpp nawet jotee ñii nga jëm Kellel Diop ñii nga jëm Taïf ñii nga jëm fu ne ngir bayyi soxna maam say ànd ak ñoom jàpp seen loxo ba dugal leen si crédit mutuel. crédit mutuel boobee mu leen di dugal nag ñu fas yéene financé góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi dañuy bay ku ne xam na ni jigéen wax dëgg yàlla rawatina Madiyana gii li fi jigéen ñi def mooy xollim gerte war nañ see jóg crédit mutuel bëgg leen a jàppale ba jigéen ñi di am ay valante man di wut ay lujum man di wut lu nekk di ko jaay kon nag ñu nit Aly Ngouille Ndiaye kàddu yi moom moo ko moom na jàppale soxna maam say ba mu am lu mu yóbbu si population bi ndax xam na ni kat ginaar moom du topp kenn koy taxani bàyyi kuy dem dàgga tey nag contexte suñu tàng mooy euh, waa banque bi ñoo fi ñëwoon pour financer ñun béykat yi ndax dañuy préparation pour jënd aw jiw dem ci dem ci tool yi léegi nag buñ ñu lebalee xaalis jël ko aw jiwu dem ci tool yi bu dee gerte gi euh, ñebe bi dugub yëpp dañ koy béy incha ak càmm gi yëpp yëpp lañ boole daal. kon jàpp soxna maam Sëñ Mbàkke moom Serigne seex Ahmadou Mbàkke moom Serigne Souhaïbou ndax jàmbaar la ñooy xaral la te lu mu yor yërëm na doomu aadama yi te mi ngi leen dimbale te yàlla tax moo tax mu indi woo fi ñi mu dikk ñuy dimbale te yàlla tax soxna maam say Mbàkke di wax ne donte confinement bi indi woon na ay jafe-jafe waaye bu fekkee feebar bi dafa wéy di defi njombe faaw rek nguur gi dooloo buum ca booy boy ba man ubbi gin ubbi ànd ma ci te na ko pression nag sonal nañ ko ñu ngi yàq dafa ay réew di yàq ba ubbi ko waaye feebar ba gën a bari ci Tuubaa gën a ci ne président Macky Sall bëggoon feer bu jeex Sénégal kenn duñ sa liggéey ndax lii dafa wax Sénégal kenn wax na réew mu ndaw la amuñu essence amuñu pétrole muñu leen lu nu mën a jàppale réew ma yi ëpp doole sax feebar solo na leen kon nag bu dikkee bëgg ñu kenn ku ne toog sa kër ñu maytundi ko maytundi ko la ko wax bëgg na surtout feebar ni mu demee feebar ma fi ne damaa tiit sax na man heure bu ma xëyee damay def sama tànk dugg ci kër leen wax surtout